asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit yi bokki taalibe yu tedd yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyoo bi nag du gudd ñëwoon rek ngir yëkkati ay kàddu yoo xam ne ni ñun la engagé ngir jàppale kii nga xam ne mooy Idrissa Seck jaaree ko ci suñuy mbokki taalibe yoo xam ne suñuy xarit la suñu suñuy wóllëre lañ di ay ndaw yoo xam ne dañoo nangoo liggéey gëm seen bopp mosuñoo kenn mosu leen gis ñu def dara ci marché occas bi lañ nekk di commerçant ñoom ñëpp yàgg yàgg amaguñu ay fanweeraat wala ci la ñu doog a ñoom ñoo toog ba gis ci seen bopp ne kii fi nekk amalu leen benn njëriñ muy Macky Sall te mi ngi ci yoo xam ne nii bu ngeen dof dofloo ba falaat ko mën na leen indil jafe-jafe ñoom commerçant yi te loolu ku ku ku kuñ ko waxut it war nga ko mën a gëm ndax kenn ku ne xam ne ne société français yi ni mu leen xajalee ci réew mi benn rek laa ci jël lu ci demee ne Auchan ñun ñëpp gise gise ko ni mu ra ni mu rayee commerce bi comme ñoom am nañ droit li nga xam ne ci la ñuy suturloo kenn deful leen dara ñu xool ne kii fi nekk da leen di nax rek di leen dig juróom-ñaari at ñu ngi ci bi bopp réew mi te lu mu leen wax rek du ko def am nañ droit nag xool ci juróom ñi nga xam ne ñoo présenté wu ki nga xam ne moo moo moo farak Sëñ Tuubaa ne taalibe Sëñ Tuubaa la ñoom fo euh, ñoom ñi moment bi ñi bokk ñëpp foofu lañ teg seen ay raison ne dañuy jàppale Idrissa Seck ñun nag li tax ñu yëkkati suñu kàddu daaw ñu yëkkati suñu kàddu ci yu bëri dañ daan jëf li ñuy jëf ci suuf rek ànd ko afe ak yeneen ñoo xam ne ni ay moment lañ yoo xam ñu ngi ci biir dëkk bi ak ay kilifa yoo xam ay seeti Sëñ Abdou Lahat ak seeti Sëñ Mbusoobe ak mboolem kilifa yi ñëpp bokk ci moment bi ànd falaat Idrissa Seck ngir jëmee sëñ Tuubaa foofu lañ ko teg nag ànd falaat Idriss rek ngir jëmee siñ Tuubaa di def alerte bu baax nag ci ñu bëri ñi nga xam ne xam nañ ne daanaka falu na ñu wër di ko jébalisé naan moo fi defoon lii wala moo fi waxoon lii du ma tudd wenn tur waaye yooyu damay jàpp ne wax ko sax dañu la ciy xeebe mais jëru ko ndax Sëñ Tuubaa bind na ci téere mi ne ña nekk bar barsàq Muhammad yee soo leen laajoon lan lan gën a bëgg mooy dellu àdduna donte ab simile ñu def ko lu baax kon ñun ñi xam ne ñun ñooy dund bu ñu leen defarul lu baax waruñoo sulli fitna joo xam ne nii eh, ñu bëri mën nañu amaatu naqar ci loo xam ne nii déew su ko fàtte sax waaye ma maanaam xel xawoon na cee génn kon jërut te yàlla dafa wax ci alxuraan ne laa yuhibbullahu jahra bi suuy yàlla bëggul kuy feeñal lu ñaaw lu nëbb loo xam dafa ñaaw yàlla bëggul ko ilaa man sulima la wax ne ndare ku ab ab ab tooñkat def na istisna te it diw lii la diw tiijaan la diw murit la lu bari la ñu ngi koy wax ci ay audio di tasaare di wax wax yoo xam ne ni di ko sàggano ay kilifa yoo xam waruñu leen koo wax loolu ñun murit kenn du dégg ñu wax geneen kilifa ak jàmbur lu dul noonu ndax suñu sëriñ yérewuñu wax lu dul noonu moom suñ tubaab ndax dafa wax ne ci masaalik ne eh, ah dafa wax ne am na fu wax ne am na fu mu wax ne eh, eh, fa kullu wuri fa kullu wér din yuridil murida li xadaratillahi walan yaxida daan ne sawaun tama ilal jilaani aw in tama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi iskul iskulluhum xatan ala sawaabi képp koo gis mu ci nit ñu baax ñooñu mu yor aw werd jox la ko nanga ko jël ndax werd yooyu yëpp day root nit ki rek yóbbu ko ci yàlla kon kooku xëccoowul ay taalibe wala ki diw sama taalibe la wala diw suñ tubaa ay taalibe ñoru te ñun ñi nga xam ne ñoo ko jox suñ bopp xam nañ ne ay taalibe ñoru ko bu ko ñoroon dëkk bi mu njëkk a sanc rakkam la ko jox téeméeri taalibe yi koy njëkk a topp moom la ko jébbal kon moom adduna ñoroom yàlla suñ borom la dëgg ma doon ba lii yàlla fayee ko lii ko topp kon ku ñëw ku xelu ñëw wala ku xelu ñëw moom la concerné te man jàpp naa ne sëriñ bu mat sëriñ sax bu nit ñëwee jébbal la boppam ak tiitaane nga war a am waroo koo ndamoo wala nga koy procuré wala nga jàpp ne dara la sëriñ bu mat sëriñ ndax ku xam ak njëbbal ni mu diisee diggante nit koo xam ne moom la doxalee diggante yow ak sa borom lu lu diis la nit nit nit ku xamul dara rek moo koy ëppalante kon jàpp naa ne bu bu ñu nee jox na boppam Sëñ Tuubaa moom waxal ko boppam te jébbalu it wax dong lañ ko mën a def du lu ñuy xool xolop kenn di ci dugg ñëpp dañ ko def muy man ak keneen ak keneen dañoo ñëw rek wax te wax jooju it moo lay dugal ci lislaam moo lay génne ci lislaam l'islam fi mu ne ci dugg ñëpp dañoo wax rek da ngay wax baati seede yi bokk ci l'islam kon diabolisation bi ak yi ñuy def naan lii laag defoon na fi lii rek yooyu jàpp naa ne ak jullit sax waru koo def man ndax am na ñu bari ñoo xam ne nii meloon nañ ne moom ñii ñaa ngi koy wax ku lu jiitu loolu sax l'islam Seydina Omar bu mu dugg ci l'islam lu ne def na ko ay ay nit ñoo xam ne nit ñu baax la waaye bi duggee lépp dafa jeex naka noonu mbaaxaan Jóob ni ñu ko waxee noonu bi mu bi mu bi mu ñëwee daaru mën naan gii lépp ñëpp dégg nañ histoire bi ni mu demee euh, sëñ sëriñ Tuubaa ci boppam jóg na fekke ko njaareem moom mbaaxaan foofu mu nekk ne ko mbaaxaan lii ngay def ak wax lépp fàttalikul bis bi ñuy maroo mooy bis bi ñuy juboo mbaaxaan ne ko duñ mos a maroo man ak yow duñ mos a ndax boobu moom jàppoon na ne mi ngi ànd ak tubaab yi ak intérêt yi mos a jubóog bi waaye sëñ moom li mu jàppoon mooy kóllëre gi ko waajuram dénkoon muy Lat Joor ne ko sama njaboot gépp jébbal naa la ko ba ci man man nag ka damaa wax xas ne waaw damay dellu Kajoor damay faatu bi waaye sama njaboot nja njébbal googu la Sëñ Tuubaa doon xool ci mbaaxaan moo tax mu xam ne ne dana ñëw ndax moom taalibeem yëpp yàlla jox na ko wax na ko taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp Sëñ Tuubaa leen tànnal boppam ci tànn ak Yonent bi sallallahu taala alayhi wa moo tax li mbaaxaan doon def lépp topp ko ci da doon jéem moom di ko wax ne ko da nga fàttaliku bés ba ñuy maroo mbaaxaan keroog ba muy jébbalu si fii taalibe yu bëree bëri bëri comme nii ñuy def di tëbaka daal di wax lu nañu di ko wax dañ ko doon wax naan duñ ko jéggal ay kilifa yu mag duñ ndax lim def sëñ waaye mbaaxaan dafa ne sëñ Tuubaa nañ ma déglu Iblis euh, euh, na moo gënoon a bon foofu te keroog bu jéggalu woon Moussa yàlla dana ko jéggal waaye rëy la def moo tax jéggalu ko ba muy ba muy traversé géej te man defaguma loolu li ma def lépp àgguguma ci li li fee xaw na def waxuguma ne man maa yàlla te teewul ba mu bu amoon oyofu jéggalu yàlla suñu borom dana ko jéggal man nag damay jéggalu te yàlla tax sëñ bi ne kon nañ ko jéggal mujj ko tudde Abdou Xafoor mujj sax njabootam bokk na ci njabootu Serigne Touba kon sëñ bi mu muy muy waajuru sëñ Abdou Salaam moom sëñ Massamba sëtub mm, Abdou Abdou Xafoor moom la sëñ Touba mujj na ko tuubal tudde kon yoon wi suñ suñ yoon wi du wow réunion du wow congrès du wow meeting du wow ñu lekk ja li ñu war a bàyyi nag mooy par parloo bi ak jënd gi ak jaay ngor gi ñi nit ñi di def te jël suñ Tuubaa euh, teg ko ci suñ kanam te bàyyi yenn influence yi ñuy def gis naa ay nit tamit euh, mën naa ne sax ay kilifa lañ leen di tuddee waaye euh, wax yi ñuy wax ak nit ñi ñuy influence suuf naan sëñ Muntaxa kii la faral ak kaa la faral sëñ Muntaxa moom li muy wax wax na ko mu di mu leer naa ñi bam toogee wax na nañu boppam wax ñu lim am fi mu ko jëlee wax ñu fi mu jëm nee na sëñ Tuubaa a ko ñor te ku ñëw ci sëñ Tuubaa lay wax ak yow te bu ñu waxoon ñun lii ñu jàpp ni ñoom xëy tey su tey ji bàyyi Idrissa Seck tey lañ koy bàyyi kon bu kenn jébulise benn murit wala wala ngay gis genn kilifa naan ko sëñ Muntaxa naan kii la faral ak kaala faral moom bu bu waxee ñu dégg ko li mu wax danañ ko def moom sëñ Muntaxa li mu wax ñoo ngi alerté tamit ñi nga xam ne ñoo yor élection yi muy Aly Ngouille Ndiaye benn alerte boo xam damay jël Sénégal gépp ñu def témoin ci lii di bëgg am Touba. Touba nañu fexe ba nañ wate normal la fi amoon ci élection yi passé bu mu fi am. Ah. élection yi bis ni ko tey bu dellusee la élection yi bis bi tey bu dell dellusee kon loolu luñ fi mën bëgg a prévoir mën nañ ko prévoir jar na sax ñu wut sécurité boo xam dañ ko daan jox Touba ñu wut ñettam ñu indi ko ñu sécuriser vote yi ba noppi it bulletin yi doy loolu ci xeetu trafic la boo xam ni na ndax daaw woote yi am dégg ñu naan bi de fin bulletin amu fa bureau sàngam bi ta bu mujj dañoo mujj ne am mbooloo tajoo na lakk bi ñu aliéné bureau yooyu kenn watewut yooyu tamit ñoo ngi jël Sénégal gépp témoin di def alerte ministre de l'intérieur mu bàyyi ci xel loolu ndax moo yore sécurité mm, beneen bi ci desit ndax li may wax nii dañ koo gis ci élection yi passé ñun waa Touba ndax dañ ñoo yem allié watewuñu te fi ñu teg ne ñàkk a wate gi mooy ay sët ay Mourtala Mbackeem si Moussa Alaaj Bara moo génn def vidéo génne seen i carte d'identité ñun allié duñu wateel Macky Sall allié bulletin yi doon yóbbu allié euh, ay 6 heures ko gis yi ñu naan allié bulletin yi demagut loolu it ñoo ngi koy bàyyi loo xel yëpp di jël Sénégal témoin ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ci attention sécuriser wate yi Touba wate yi déroulé normal ndax bu yàlla defee jàmm rek wate yi du yàgg ndax juróomi candidat lañ na ñëpp xëy ànd ak ab yar ak i teggin dem sécuriser wate yi ci boppam ak yenn kër yi nga xam ne dañ fa daan def euh, daaw gisoon ngeen ko yooyu ñoo ngi koy bàyyi xel ñoo ngi ciy liggéey danañ fa yéene daal lépp loo xam ne lal nañ ko ngir naxasal Touba wala ñu néew doole waa Touba ñun danañ jël suñuy moyen ak yi ñu am yëpp di ko def laajuñ ci xalaatu kenn nag ak moyen yi kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala